ñu ngi leen ñaan nga nga abonné wala ngaa seetaan vidéo bi bi dugale vidéo nga mën di jot الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته tabarakallahu mbokki jullit yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ay ñooñam ak i saxaabaam dellu si ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmed Samb tabarakallahu ji ñu ngi gërëm professeur Alioune Sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def na ko yàlla musal ci cat te barkeel ko bi xormati sayidna muhammad sallallahu alayhi wa e, mu mel ni tey dañu ñëw continuer ak ci dundu sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñu ko defé won melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xare bu nga xam ne yàlla daf ci wàccee aw saar mu di suratul xashr sëriñ bi ñuy wax abdullah ibnu abbas moom sax nee na saar wi tuddul suratul xashr mais suratul nadir la tudd mu mel ni xew-xew bu rëy la woon ci diggante sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahud yi ñuy tuddee bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير turu benn bi bu ñuy wax maanaam ci yahut yi ñu nga dëkke woon madinatul munawar maanaam Nadir giir la woon gu dëkkee madinatul munawara waaye dëkkuñu woon ci biir dëkk bi ñu nga dëkkoon ca biti dëkk ba fa ñu dëkkoon nag dafa amoon ay tata maanaa tata moo di ay kiiraay yoo xam ne bu ñu dee xeex ku leen song itam doo leen mënal dar mu nekkoon itam barab bi ñu dëkkee barab bu nëtëx ci wàllu mbay ndax ay tooli jardin yu naata fa nekkoon diggante si digganteem nag ak Medina lu tolloog ñaari kilomètre dox na fa waaye dañ koy limaale itam ci Medina mu mel ni yahud yooyu yàlla mëne woon na leen gan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni ñëw na Madinatul Munawwara haadana yahuda bani al-Nadir wa aataahum ahdan wa dimma ala an la yuqaatilahum wala yuqaatiluuhu yonent bi sallallahu ci doxalinam bu yiw ba bi mu ñëwee ci Madina gàddaay jóge màkk yahud yi mu dajale woon waxtaan ak ñoom fasanteeg ñoom wëllëri ne bu ko ay noonam songee ñoom ñu jàppale ko ñoom itam bu leen seeni noon songee moom mu jàppale leen wax ne ne yahud yooyu ma dajale woon yahutu Bani Nadir ci lañu bokk ñu wax ak yonent bi wax bu wér ñu bind ko ci këyit signé ko d'accord ci ne danañu dëkk dëkku jàmm ak woor ma waaye nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu toogee Medina ba am fa ñeenti at giir gii di ba Bani Nadir fecc nañu seen wëllëre moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi génn na bisu samedi mu julli ci jàkkay Quba ànd ak mbooloo mu takku ci ay saxaabaam ci muhaajiruun yi ak wal ansaar mu ñëwoon nag ci Bani Nadir doon waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diya ñaar ñu ñu rey te ki leen rey moo di amr ibnu umayya neena bi mu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafaalu ya abal qasim ma ahbabt yow abal qasim yonent bi dafa bokkoon ci ay dàkkantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim lim ñu ñaan danañu la ko defal danañu la jàppale ci diya ñaar ñooñu ñu rey te Amr ibnu Umayya rey leen danañ la ci jàppale waaye keroog bi yonent bi solo alayhi wa sallam di waxtaan ak ñoom mu ngi toog wéeru ci benn miir ci seen kër yi ndeke boobu ñoom lal nañu ak caay-caay ndax yittewoo woon nañu rey yonent bi yittewoo itam wor ko équipe bi muy waxtaan ak ñoom am na ku ñuy wax Omar ibnu Jihash ibnu Kaab moom moo wax ne ana azharu ala albayt fa atraxu alayhi saxra mu ne bàyyi leen ma mooy yéeg ci kaw étage bi wut ngandamal xeer comme fi mu étage bi daf ko tiim ma waddal xeer bi ci kaw boppam mu dee su ko defee nag ñu def ak arab yi ndax kii lëjal nañu wit loolu la euh, Omar ibnul Jaxaas ibnu Kaab loolu la wax te boobu yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi toog ak yahuutu Bani Nadir di waxtaan ak ñoom waaye am na benn waay bu ñuy wax salaam moo leen artu ne leen bu leen ko def ndax kat amaana su ngeen nasee lii ba def ko ba nar koo def danañ ko ko wax wante ni mu ko waxe woon moom salaam noonu la ame ndax bi nase mbir momu ba nar koo def te moo di waa ji yëg ci kaw ciim yonent bi sànni ko xeer wi ci kaw boppam mu faatu am na lu ñëw ci yonent bi wax ko Euh, wor bi nga xamante ni yahud yi muy waxtaanal nas nanu ko ci barab bii muy waxtaaneek ñoom neneen foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa di ne bërit jóg boo xam fogu ko ci mu di jóg bu gaaw mu waaxu dëgg tànk yu wér jëm medinatul ay sahaba yu ko dab ci njabootam gi ndax daal jëg gis neen mu jóg waaye xamuñu lu ko jógloo ndeke moom kat am na leneen luy wax ak moom bu ko yéefir yi gëmul itam euh, moom moom yëg na ko te ay saxaabaam yëg nañu ko ñoom ñëpp ñu jóg topp ci ginnaawam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ba Medinatul Munawwara yebal na ku ñuy wax Muhammad ibnu Maslama ne ko demal ca Bani Nadir nga génnee leen dëkk bi mënatuma dëkk ak ñoom Muhammad ibnu Maslama ñëw na waxtaan ak wa Bani Nadir ne leen sang bi moom a yónni nee na ngeen génn dëkk bi ñu ne ko nu ñuy génnee te ñun fi lañu dëkk dëkk neen fi ay nangami nangami at te suñuy maam suñuy maamaat fi leen dëkk mu ne yonent bi daal moom a yónni nee na da ko wor ndax li ngeen na nasoon moo di rey ko loolu nag la ko yàlla xam loo moo tax moom ma yónni nee na ngeen génn dëkk bi may neen leen nag diiru ci fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen ko na ngeen génn ak moom yóbbaale ko waaye mënatu la dëkk ak yéen su fekkente ni fukki fan yooyu weesu na nag keneen kuñu ñu gis ci yéen ci dëkk bi danañu dog baatam wante am na benn naafeq bu ñuy wax ibnu ubay ibnu ubay ibnu salul naafeq bu bon la doon kilifa gu ñu warmal ci Medina ndax dafa ne gëm na yonent bi te gëmu ko bu ñu ko reyee muy gàcc ci jullit ñi ndax dañ naan rey nenu jullit te bu ñu ko bàyyee itam mu di fitna ci ñoom ndax mu ngi yàq ci biir te kenn mënu ci dara ibnu ubay ibnu salul naafiq bu rëy boobu moom itam yónnee na ci bani nadir ne bu leen génn seen kër yi yéen yàlla jox na leen doole ndax am ngeen ni tata xeex ak yéen dana jafe te kat maa ngi maa ngi leen di yëgal ni su ngeen songook yonent bi di xeexak moom duñu leen seetaan ndax dana leen yónnee ñaari junniy soldaar nee itam ñeneen ñi di ay noon ci arab yi danañu leen yónnee itam ay soldaar pour jàppale leen ndax yonent bi ñu ko fi bëgg bariwul nee itam giir gu ñuy wax Qurayda ay yahud lañu danañu leen jàppale ak giir gu ñuy wax Xatafaan ñoom itam danañu leen jàppale kon bu leen bu ragal bu leen tiit toog leen moomul dëkk bi bu leen fi génn loolu la ibnu ubay ibnu salul loolu la wax yónnee ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax xay xay ibnu axtab ñu ne bi nga xamante ni ndaw la ñëw na loolu jox na yahuutu ba ngeen nadir fit ñu nekkoon kon nag dootuñu génn comme ñun am nañu ñu ñu jàppale dootuñu génn ñoom itam ñu yebal ndaw ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko inna la naxruju min diyaarina fasna ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yëgal yow Muhammad ne ñun kat fas yéeneetu ñoo génn ci suñu kër yi kon nag loo mën defal ñu ngi toog di la xaar loolu la alquran net li ne ibnu ubay ibnu salul loolu mu wax gëmu ko te itam dugal na yahutu bani nadir ba ñu dugg ci mbir moo xamante ni dana len saf-sap loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladina nafaqu yaquluuna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli alkitabi la in uxrijtum la naxrujanna ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذي كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو لا برم سبحانه وتعالى وخ يلا نينا يوم محمد صلى الله عليه وسلم xanaa gisuloo gaa nga xam ne ay naafiq lañu ñoom ñu ngay nëbb ak kéeféer di feeñal ak ngëm te jubluwul kenn ca baatu naafaqu kudul abla ibnu ubay ibnu salul ak ñi ànd ak moom ñoom de ñu ngay wax seen mbokk ya nga xamante ni ñoo bokk ak kéeféer bokk itam di ay juif te moo di banu nadir naan leen suñ leen génnee danañu génn ànd ak yéen te itam bu Muhammad jógee di xeexak ak yéen danañu leen jàppale yàlla nee na yow Muhammad maa ngi giñ ci yàlla ne man yàlla xam naa ne ñoom dañuy fen waxuñu dëgg ndax kat soo jógee di xeex ak ñoom nee na danañu leen wan gannaaw danañu daw ba duñ leen nangoo jàppale ci dara ndax kat ñoom ragal lanu ay buqat lanu ragal lanu ay buqat lanu lu tax xam nga xale xamul yàlla yar la xam ab na fex itam xamul yàlla yar la xam mu ne seen jaas yi lanu gën a ragal man yàlla ba foog ne ne mën nanu maa nax waaye nag ñu ngay maslaa bu mucc ci seeni jaas yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom duñu jóg mukk pour nam ma xeex ak yéen lu dul dañoo wéeru ci lu dëgër lu leen mën a aar nee na soo leen gisee nag ak seeni mbooloo dangay ngay ne borom kàttan lanu ndax seen lam ñi rëy na seeni jëmm dara jawu na waaye nag seeni biir dara nekku ca ndax ay boqat lanu seeni biir dara nekku ci ay buqat lañu mu mel ni laa yuqaatiluunakum jamian illa fi quran muhassanatin am min wara'i jurub ba'suhum baynakum shadid boo leen gisee ñuy wane ak ñàngaay ay buqat lañu taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta soo leen gisee foog ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg-bëgg seen ngëm dëgër na wante ñoom ci seen biir yéenante wu ñu jàmm dañoo bañante loolu la yonente bi sallallahu wa sallam di junj ci xadisam ba ne aljamaatu rahmatun wal furqatu adab te sëñ Babacar si radiallahu taala anhu firi ko firi bu rafet ne aljamaatu mbooloo mu bokk bëgg-bëgg bokk fu ñu jëm rahmatun lu ñu wut am ko wal furqatu mbooloo mu bari si am doole te bokkuñu bëgg-bëgg bokkuñu fu ñu jëm Ada lu ñu wut ña ko loolu nag mën wax ne xadis bobu firi ayebi aye bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta seen mbooloo rëy na bëri na ñuy ngànnaay bëri na ñuy matériel waaye nag seeni bëgg-bëgg àndul lu dalika bi annahum qawmun la xelu la tax bu ragal jugal nga xex ak ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di jóg jóg bu jek jëkk len xare ak ñoom xare bu wér yàlla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ño jóg pour jàppale yahuutu bani nadir yàlla ni ka mathali alladina min qablihim qariban daaqu wabala amrihim walahum adabun alim yàlla ni misaal mi mën na bañ a xoole leen rek waa badar te kat ñoom jëloon nañu seen cër ndax da nga jóg te sa mbooloo tuuti waaye ñoo bokk pas-pas bokk fu ñu jëm bokk bëgg-bëgg seen pas-pas modi di tawxid seen bëgg-bëgg moo di jege yàlla ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen ndax loolu moo doon seen force moo doon seen doole ñële nag dañu jógoon di wut àdduna ak ku nekk na koy wute wuute bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rekk yaay kilifa ci jullit ñi te kat waa Badar yooyu nga xam na ñii ne neen junni la ñii ne junni bu manqué téeméer la wante lu mu ci mënti doon rek waa Badar yooyu ëppoon nañu jullit ñi lool كروك سين بولو مم لا موي باري باري باري او ياغاني كن نك مثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم منيتم كن واخ بوبو ابن ابي ابن السلول واخ واخك بن النضير بوم لا جاخال نخ مثل الشيطان إذا قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين mu ne ko ni ibnu ubay ibnu selul def ak bani nadir noonu itam la seytaane di def ak nit léeg-léeg seytaane topp nit di ko moyloo di ko moyloo di ko moyloo ba dugg safara rek des ko dese ko mu daal di daw nag tàccu ne ko nag bokkuma ak yow dara man ragal naa sama borom waaw seytaane mooy def loolu léeg-léeg muy nax nit di ko nax di nax nit rek ba mu nuur ci mooy soo dee nankatu sàngara mu ngi lay nax rek pour nga sax ci bu dee sàcc nga mu lay nax rek pour nga sax ci bu dee mooykat nga seytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waaye boo demee nag ba jege sukaraat war a faatu da ngay gis daf lay daw ne la bokk ma ak yow dara du nangoo bokk ak yow dara bàyyee la sa bopp pour boo demee mën a lay la nga doon def sa digganteeg sa borom seytaane bis mas naa benn waay soppaliku nit di waxtaan ak moom indil ko ay mbir ba waa ji julliwul suba julliwul tisbaar julliwul takusaan julliwul timis julliwul gee bi ñu demee ba tëdd des ne ko maa ngi dem mu ne ko foo jëm mu ne ko ah xanaa xamuloo ne man may seytaane man benn yoon rek laa mosa mooy yàlla ci sama dund yàlla rëbb ma dàq ma tuddee ma ko bon ki tuddee ma ko ñu rëbb ki ne ëllëg safara la may dugal yow nag bis bi mooy nga ci sa borom juróomi yoon ndax julliwuloo su julliwuloo tisbaar julliwuloo tàkkusaan julliwuloo timis julliwuloo gee mu ne kon nag yaa ma gën yaa ma gën a rëy ay bakkaar damay ragal nag bugalu yàlla mi di wàcc fekkaale ma fi ma bokk ci nga gis ne kon cheytaani noonu lay jàmboo nit yàlla nag na yonent bi ibnu ubay ibnu salul wax naak bani nadir waaye dana leen jàmm moo tax yàlla ne fa kaana aqibatuhuma annahuma fi nnaari xaalidayni fiiha wa dalika jazaau zalimin cheytaane ku ànd ak moom itam yàlla dana leen xëy boole dugal leen safara moo tax ñu ne borom bi subhaanahu wa taala weddi na kàddu googu nga xamante ni ibnu ubay wax na ko ñoom itam jox na leen fit ñoom ba bani nadir ñu yónnee ci yonent bi wan ko ne ko daal léegi génn tuñu bi kàddu bi yonent bi déggee kàddu bi kàbbar na ca kaw daal di jóg jógu pas-pas akuk njàmbaar jullit ñëpp daal di jóg ñoom itam kàbbar ànd ak moom yonent bi dëgg tànk yu dëgër jëm nag ca barab boobu dégg nga ñu nekk ca bani nadir ñu ne yonent bi sallallahu keroog ba mu jógee ali ibnu abi talib radiallahu anhu moo yoree drapeau ba mu bàyyi ca medinatul munawwara nag ku ko fa wuutu di silmaxa bu baax ba di ablaay ibnu ummi maktum yonent bi foofu la jullee tàkkusaan ci bani nadir xeex ba dox nag seen diggante ak diggante Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa na wante yahudu bani nadir keroog am na nañu lu leen métti ndax ba xeex ba méttee gisuñu Abdallah ibnu Ubay ak ñaari junniy soldaar yam leen digoon gisuñu itam yahudu bani Qurayda gisuñu itam giir Xatafaan te ñooñu ñoo ne woon danañu ko jàppale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na boo dee digee bul digeeg ab nafiq nee na ndax nafiq ñetti jikko la am ayatul munafiqi talaata nafiq ñetti jikko la am moo di ne bu waxtaanee fen ci biir waxtaanam foo fekk ab nafiq su waxtaanee fen ci biir waxtaanam feeñ na ci waxtaanu ibnu ubay ndax fen na ci biir waxtaanam ndax li wax yëgutu ba ni du dëgg nee itam moom sallallahu alayhi wa sallam nee na ab naafeq su la diggee dina faussé lam la dikk su la joxee rendez-vous du ñëw su ngeen waxee mbir ba fas ko itam yow yaa koy xala def waaye moom fas yéene ko bañ ko waxee ba fas ko ci la ko fàtte itam mu war la ñetti jikko yi moo di jikkoy naafeq su waxtaanee fen bu digee wor boo ko wóoloo itam mu war la mu mel ni encercler nañu seen dëkk boobu seen tata yooyu ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na dagg sax seen tàndarma yu naat ya ba ñoom ñu mujj di ko wax naan ko ya abal qasim wa qad kunta tanha al fasad tanha ani al fasad yow abal qasim du yow yaa daan tere ak yàq lu tax ngay dagg suñu toolu tàndarma yi foofu nag yàlla moo àddune ma qataatum min liinatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha fa bi idnillahi wa li yuxdiya alfasiqin yàlla ne lu ngeen dagg ci tàndarma gu naat wala ngeen bàyyi ko sax bañ koo dagg nee na dagg baak ñàkk a dagg ga ndigalu yàlla la dagg ga pour na ma gàcceer rekk dégg nga maam fasiqun yooyu di ba bani nadir kon nag loolu yàlla du ko tuddee ak yàq loolu ak gàcce la ko yàlla tuddee te moo di gàcceel yahutu bani nadir moo di di yàq seen alal te duñ ci mën dara foofu nag ak li seeni ngannaay di bari ak li seeni tata yi di dëgër dëgër yëpp ak ni muy naqaree dugg yëpp yàlla fexe na ba roof ci ñoom ak mbuqat roof ci ñoom ak ragal moo taxoon ba ñu demee ba tiit yàlla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonent bi ne ko naxruju an bilaadik bàyyi ñu ñu génn sa réew mi ndax yow mii kat suñu deful nii dag ñu rey kenn par kenn ba ñu jeex yonent bi ne leen seen kàddu googu tey duma ko dégg waaye ci yërmandeem mujj na wax ak ñoom ne leen su ngeen bëggee mucc ñoŋal seeni deret génn leen ñoom nag ñu commencé di génn yonent bi ne leen lu ngeen mën a sëf ci seeni gëléem ci seeni alal sëf leen ko ngeen dem ak moom waaye nag bu leen yóbbaale ngànnaay ngànnaay yi bàyyi leen ko fi mel ni kon ngànnaay yi jullit alalu jullit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawee ñoom itam pour dëgëral diine lislaam nee na ñoom itam ñu daal di nangu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam encerclé nañu seen dëkk boobu lu tolloog fukki fan ak juróom nee na ca génn nag ba jeex tàkk ñii ñu nga jëm xaybar dëkku yahud la ñi ci des dem Shaam ci dëkk bu ñuy wax jurash mu ngi nekk ci eh, sud du sham mu ngi nekk ci jënu bu ñu ne nag seen sang ya dem nañu xaybar ku ci mel ni abil xaqiq kooku xaybar la dem ak xayub nu axtab ñoom xaybar la nu dem ba ñu demee itam xaybar diggante xaybar ak medinatul munawara téeméeri kilomètre la ba ñu fa demee itam ah, waa xaybar wàcce nañ leen wàccuwaay bu rafet dalal len gan ñu muju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa taala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr te sidna abla abla ibnu abbas di wax ne sar wit mën nañ ko wax ne modi di bani nadir neena ci la yàlla nettali nak histoire bi دي اسوارو بني النضير برم سبحانه وتعالى دي وخني سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العديد الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار borom سبحانه وتعالى wa وقت سارويني سبح سللنا sabaxa lillahi sellal na yàlla wéetal na yàlla julli na ngir yàlla lan moo sellal yàlla lan moo wéetal yàlla lan moo julli ngir yàlla maa fi samawaati wa maa fi l ard lépp lu nekk ci asamaan yi di juróom-ñaar ak suuf yi di juróom-ñaar kon lépp loo gis ci kaw asamaan mu di mbindeef yi ñu mën a teg bët ak yi ñu mënta teg bët ak lépp lu nekk ci kaw suuf mu di mbindeef yi ñu mën a teg bët ak yi ñu mënta teg bët ñoom ñu ngi di ñu ngi jullil yàlla di ko sàbbaal di ko bàkk ci turam yu rëy xanaa kay ñaari way ndijji bopp yi ñoom ñoo dëgër bopp am ñu cay jaamu yàlla am ñu bañ te moo di nit ak ginne na ñuy jaamu yàlla am ñu bañ waye nak leneen luddul nit ak jinne di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarm wala muus mi la romb la wala yoobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ceeb bi ci boppam yépp ñu ngay sabbal yàlla loolu la yàlla wax ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard lu tax ndax wawa moom yàlla moomu al azizu mooy ki not ci nguuram alxakimu mooy ki xereñe ci diriger ay mbiram te maandu ca moom yàlla mooy ki xereñ ci doxal ay mbiram te mooy itam ki maandu wal adidul xakim waaye yàlla dafa ubbee saar wi wax boobu waaye dafa bëgg a itam ne la génne yahutu bani nadir ca dëkk ba mooma ci kàttanam la nu génne mu ne wëlladi mooy buur bi nga xam ne axraja alladina kafaru moo génne gaañ nga xam ne weddi woon nanu min ahlil kitaabi ca dégg nga yahud ya moo leen génne min diyaarihim ci seen kër ya li ëwalil xashr nee na te itam loolu ca njëlbeenu pàng gala yataama wal wa wabni sabili kay laa yakunu duulatan bayna al agniyaai minkum wa ma ataakum ar rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqaab ñu ne aaya boobu moo tax muhaajiroon yi ak waa lansaar yi bàyyee seen bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alal jàngoog loo ci def rek noona moo tax ñu ne wa ma ataakum rasulu fa xuduuhu yonent bi lu mu leen jox ci cëru màng gi na ngeen ci jàpp lu mu leen ci xañ itam na ngeen ko muñ te ragal yàlla xam ne yàlla ku metti mbugal la nee na looloo taxoon amuñ ca benn bëgg-bëgg waaye yàlla tagg na yi ne lil fuqaraa il muhajirin alladina uxriju min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadlan min allah wa ridwanan wa yansuruna allah wa rasulahu ulaika hum ñu ni yàlla tàgg na muhaajiruun yi ne muhaajiruun yi nga xam ne dañ leen a génnee seeni kër nangu seeni alal te li tax ñu nangu ko du dara lu dul rekk ñoom sàkku nañu ngëneelu yàlla ba doyadal seeni alal woon ko gannaaw sàkku itam ngërëmal yàlla ba taxaw fas yéene dimbali yàlla ak yonentam ba yàlla ne nu ñooñu ñooñu dëgguña moo tax yàlla balaa balaa nattu jullit rek jullit bi taxaw ne gëm naa yàlla soo ne gëm naa yàlla rek nattu yi tegaloo nag waaw nattu yi tegaloo ndax yàlla dafay nattu nitam moo tax ñu ne yàlla balaa toog dafay fàkk waaw balaa ñu ne barab bi yàlla ngi fi yàlla dana ko fàkk ba lu fa dul moom jóge fa mu soog a toog fàkk ba nag dana metti waaye bu muñee bu yàlla xasee toog jeex na waaw dootoo yëg ci benn coono mu mel ni yàlla toog fàkk na ci muhaajiroon yi ba mu fàkkee gis na ni e, ay nitam ay nitam rek a fa nekk ñu ko gëm rekk a fa nekk ñu ko bëgg rek a fa nekk looloo tax moom borom bi subhanahu wa taala mu tagg ne lil fuqaraa il muhajirin alladina uxriju min diyarihim wa amwalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allah wa rasulahu ulaayika hum sadiqun yàlla tagg leen ci ne ñu dëggu lan waaye itam tagg na ñii nga xamante ni ñoom ñoo di yàlla tagg na leen ci seenu doylu tagg na leen itam ci bëgg gu ñu bëggal muhaajiroon yi lu baax comme niñ ko bëggale seen bop yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na balaa ngaa mën a nekk ku gëm yàlla nee na fokk li nga bëggal sa bopp ci nga bëggal ko nit ñi ba noppi waaw li nga bëggal sa ci nga bëggal ko nit ñi ba noppi waaw fukki eh, million bi fi nekk kat kenn ko mën a am ci yéen nga ne joxal diw waaw te yàlla rek tax ah ki def loolu de gëm na waaye nag ñu jox ko diw nga ne lu tax ñu jox ko ko bàyyi ma sa ngëm des na nit dafay li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi loolu bu xasee nekk ci jullit rek kañaan dàqu na ci yow soxor dàqu na ci yow mbañal dàqu na ci yow moo tax yàlla tagg saar ndax nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol bëgg wa muhajirin yene len leen seeni alal yéene leen itam seen lépp yàlla ne wal ladina ad-dara wal iman min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يلني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يلنينا nee jangoro jàngoro jangoro yëpp naye ci gëna bon waaw jangoro yi naye ci gëna bon mu ne nag képp koo xam ne nag dindil na la jangoro nay nee ak texe nak jege la lool ak texe jege lool képp ko xam yalla dindil na ko jangoro nay ak texe jege ko mu melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindiloon walam lamsaar kon tabarakallahu mbokk yi kon tabarakallahu mbokk yi Eh, waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi ñuy tàllal loxo ne ñu tey lettres yi sax duñu mën a jàll xam naa publicité yi ñoo xaw a jël ci temps bi tuuti kon tabarakallahu mbokk yi eh, ñu leen di ñaan rek incha allah ba eh, ajuma ji di ñëw suur pour ñu mën a jàllale yenn lettres yi seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Ahmed Samb